salaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amaan mbégte jàkkaarloog yéen na fii ci Pexxe TV indilaat leen seen émission lu xew tey émission lu xew tey nag comme ni ñu leen ko waxee woon ay cas yu la. képp koo xamante ne am na cas boo dund wala nga gis ku ko dund te mu nekk réalité nekk lu leer euh, na ngeen jaar ci numéro yooyu nga xam ne mooy jàll ci suuf dingeen ngeen jot ñi nga xamante ne ñooy ñuy ndaw bu ko defee ngeen expliquer leen cas bi ni mu gënee leeree. lépp loo xamante ni am na ci biir kaa rek bu leen ko fàttee bu leen ko bàyyi lu mu tuuti tuuti lu mu ndaw ndaw bu ko defee ñu daal di koy waxtaanee comme ni ma leen ko waxee rek Pexxe TV ay pexe rek moo ko tax a jóg ak yëf lu mu metti metti metti incha allahu bi dinañ xool nu ñuy def ba wut ci ay pexe parce que yaakaar naa ni Pexxe TV àdduna ñoo koy setaan te ñoo koy bàyyi xel kenn ku ci nekk yaa ngi wootee di euh, am yërmande ci ñi nga xamante ni ñoo dundukaay yu métti yi ngir jàppale leen te yàlla rek tax moo xam nga nekk maara bi nga xamante ni yàlla dafa def nga jàng alxuraan sa xam-xam màcc jëm foofu nga am xam-xam am loo mën a jàppale doomu aadama ñëpp ñu ngi woote ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel di woote saa su nekk ngir jàppale ñi nga xamante ni ñooy indi fii seeni kaa mu metti ak mu am jafe-jafe lépp lu mu a doon rek yéen a ciy jàpp ñu ngi leen di gërëm bu baax baax di wax ni yéen ko moom numéro yaa ngi noonu tey nag li nga xamante ne lu xew tey moom la indi fii ci biir Pexxe TV dafa nekk loo xam ne yaakaar naa ne lëmbe na àdduna yaakaar naa ne metti na ñu bari ñi nga xamante ni ñoo takku taxaw temm ngir rek di toroxal di suufeel doomu aadama yi nga xam ne ñooy wax ni yàlla nee na yonent bi nee na ñooñu ci seen jëmi bopp ñoom ñoo tuuti ñoom ñoo torox waaye du ki nga xamante ne dafa nekk xale bu ndaw jàng alxuraanam jàng lu dul li yàlla wax ak li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nga toog rusoo ci loolu dara yow xanaa bu fekkee ni sax danga ko bëgg a toroxal wala nga bëgg koo taqal nga xool ci li nga xamante ni ci la nekk di ci wax suba ak ngoon guddi ak bëccëg mu di oustaz Pape Hann tuuma yooyu nga xamante ni moom la ñu jël di ko teg ci kawam saa su nekk ay xale yu ndaw yoo xamante ni tekkiwuñu dara dañu nekk ci internet bi suba ba ngoon jot di uññi suturay doomu aadama yi bala maa dee ñu teg ay aaya nan dañuy jéema waaraate loolu ngay waaraate yow aadamoo laay waxal bu fekkoon ni gëm nga ko wala mu nekk ci sa biir xol kon doo waaraate ba pare wëlbatiku di uññi suturay doomu aadama ak aaya boo mën a indi rek kenn ku ne xam na ni yàlla suñu borom bëggul ku yee fitna te bëggul itam kuy uññi sutura doomu aadama kooku moom mënoo indi benn aaya ba yàlla bëgg loolu wala mu rafetal ko kon nag yow mi nga xamante ni yaay toog naan oustaz Pape Hann na woote mel ni ku koy menacé oustaz Pape Hann manqué wul matadiwul bay woote téléphone naan day leeral lenn ci wax yu bon yu ñaaw yooyu ngeen di ko tuumaal xale bu jigéen bi nag ku ñàkk fayda la bu yaakaaree ne bu fekkee dafa séq ak oustaz Pape Hann wala séquñu ndax man gëwma loolu mënut a nekk bu fekkee dafa séq ak moom bu dee dafa yaakaar ne oustaz Pape Hann rek moo moo moo def safaan dafay nax boppam ndax moom en tant que jigéen en tant que yaay nekk ki nga xamante ni lépp loo gis lu baax jigéen moo ko jur moo ko meññe mu taxaw naan man maa defal li oustaz Pape Hann ma ngay xas boppam te yëgu ko ma ngay xas bépp jigéen boo xamante ne moo jàkkaarloo ak moom di ko seetaan te yëgu ko oustaz Pape Hann ma di la wax ne say sœur nag ñu ngi génn di wax parce que lu yëngu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole saa boo laalee deretu nit rek moom dina génn dina wax dina justifié wu wante defoo waxoo te xam naa ne lii lépp ay tuuma rek la te Sénégal yëpp ñu ngi ci sa ginnaaw di la jàppale képp koo xam ne bëgg na lu baax gëm yàlla gëm yonent bi sa alayhi wasallam te sopp la mi ngi ci sa ginnaaw di la jàppale TikTok baa ngi toj ñëpp a ngi toog teg sa foto ci ginnaaw di la waxal lu baax tuuma nag yàgg na fii ci àdduna képp ku fi nit ku baax ngay sëriñ ak loo mën a doon yàgg nañ di la teg ay tuuma soxna Aïcha soxna Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam teg nañ ci kawam ay tuuma ba xaw koo jaxase ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam booy euh, booy defaat émission sax bu ci ñëw mu mel ni ci tuuma ngay ñëw bul dugg sax ci mbirum tuuma mu mel ni yëf yi yëngal na la wala am na lenn lenn loo xamante ni def na la ko parce que ñi la soppoon tey lañ la gën a sopp ndax kenn bëggul kuy déstabiliser doomu aadama te lii yëpp ay xeexu ñi nga xamante ne dañu doon ay góor jigéen nekk bitim réew lonko ak góor jigéen yi nga xam ne ñoo nekk fii bëgguñu kenn ku naan yàlla nee na yonent bi nee na ak li nga xamante ne mooy mbirum góor jigéen ñu bëgg ñu daganal ko fii ci Sénégal ñu bëgg ñu voté loi bi fii ci Sénégal te mënut a nekk ndax dëkk bi ay jullit lañu même ñi nga xamante ne ay chrétien lañu sax bëgguñu góor jigéen bëgguñu ko tey bëgguñu ko suba te ginnaaw suba duñu ko bëgg ma di la wax ne ñoo ngi ci sa ginnaaw guddi bëccëg suba angoon ni la bëggee woon la bëggee te képp koo xamante ni sax bàyyiwu la woon xel lii nii ba mu xewee dalaa bàyyi xel gën laa bëgg gën laa sopp ma di la wax ne dala la sa xel kenn jàppul ci li lay waxal dara kenn jàpp ci dara yow moom nga xamante ne nag yow yaa osé génn ci réseaux sociaux yi dinaan man maa def ak lii oustaz Pape boo jàppee ni moom rek ngay xas nax nga sa bopp xas nga sa wayjur xas nga bépp jigéen xas nga itam sa bopp may wax oustaz ko dara laatal sa xel yow ak say mbokk ak képp koo xamante ne bëgg na la fi mu toll comme loi bi bëgguñu ñu voté ko fii nanguwuñ ko léegi saboté moo leen dese amatuñu benn arma di saboté nit ñi nga xamante ne ñoo nekk fii di wax xaalallahu xaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yow ak ñi mel ni yow léeg nga gis imaam boo xamante ne dañ koy taqal diw ko wax joo xam ne yëgul te lool lépp seen liggéey la ñoom ci seen bopp. li du du démb ak li mu dund bët ki démb suñu yoon nekku ci li ñu soxal mooy li nga xamante ne moom la nekk di ko wax askan wi muy lu baax nit ki mën cee jaar jëriñu nit ki mën cee jaar di muur boppam nit ki mën cee jaar daawul julli muy julli lépp loo xamante ne lu baax la te nekkoo ci woon nga di ci nekk ndax lan oustaz Pape bi ngay déglu am ak ñi mel ni moom yéen ñëpp nag laay wax dalal leen seen xel ñun ñu ngeek yéen tout le temps saa su nekk yéen la déglu yéen la ñu bëgg soxlawuñu góor jigéen tey soxlawuñu ko suba lu ñu fi mënti saboté wala lu ñu mënti wax wala lu ñu mënti sos ak tuuma bu ñu leen mënti teg lijjanti wuñu loolu xam nga lan nañ lijjanti lu baax li ngay wax waaw mais bu fekkee oustaz Pape Hann dañoo wax ne dafa def loolu lu baax li muy def ci réew mi nag ajjuma bu nekk ñaata yoon la toog ci télé bi di wax nit ñi yàlla nee na yonent bi nee na lan moo tax waxuñu ci loolu benn li nga xamante ne dañ ko ko bëgg a diw rek taqal ko ko foo tourné ñu ne oustaz Pape Hann foo tourné ñu ne oustaz Pape Hann dalal sa xel bu baax a baax a baax lii ñuy wax ci yow gëmuñu ko li ñu gëm ci yow xam ko mooy yàlla nee na yonent bi nee na yow ak say mbokk ak ñëpp dalal leen seen xel fii la ñuy yem ak yéen ci seen biir émission lu xew tey fii ci Pexxe wax ne semaine prochaine incha allah ci beneen émission